buzz wul wul Aziz wul Aziz. ay buzz mani mani mafia bi na ma déglu. ma may la son bi. yaa ngi buzz laay waxal. gis nga grand mii. dama ko yërëm. <laughs> way bi maay borom. lamb jeex na. lamb jeex na parce sama way la teg. ngeen déglu nag léegi kan moom moom woy bi nee naa la dañuy nax seen bopp te lu wax lu ne day am dama ne la Boy Niang 2 dafa ñëw dékk loxo Balla Gaye 2 ne ko dama laa soxla Balla Gaye 2 ne ko ma sa morom bëri rek sama rakk toog ci plateau yi ne dañ ma jox avance ci fair play nag nañ dégloonte ñu jox ko avance bi mu jël ko yóbbu këram mafia bi ñoo préparé sa Thiès Balla Bousse Aziz Ndiaye Géejawaay ñoo préparé sa Thiès cent pour cent Géejawaay ñu ñëw Boy ñu ñëw def nañ lu parce que dañ ñëwoon booy bi seen kaw la jëm si il faut ñu freiné ko mais kan mooy freiné booy bi sama rakk moo koy freiné mais bañ ñëwee daal ma ko kat appui bañ ñëwee làmb ji yombul dama koo def lu métti dama koo weexal weexal yu métti yàq kanam gi yëpp bës daan ko bi ko daanee ci suuru combat bi ndeysaan suñu papa yàlla na ko yàlla may fan mu gudd ak wér gu yaram bàyyi ko suñu kanam muy duubalees ñëpp gis nañ réaction ca làmb ji jour boobu sax dafa mer ndeysaan ñu jógee ci ma ne ko Balla yaa ma waxoon ne yaa sa moom moo ma mën ma daan sa rakk kaa mu bañ mu ne du maag yow waa géej waaye un saa Thiès moo may booy ñaaw tur bës ma koy laaj mu bañ ma dem jëlee la dëgg deux bës ñu ne mooy sama bac bës ma def bac bëre combat bi yëpp def heure ñàkk làmb ci dernière minute wëlbati ko première réaction bi ngeen njëkk jël booy ñaaw lu mu leen wax kaasu Balla Gaye moo fi des <laughs> kon ba léegi maa ngi ci sama position di laaj Balla ba tey changé wu ma ko man maa ko bëgg man maa bëgg Balla xanaa mu ne non non damaa échec sama bac man leen ok maa ngi dem defi BFEM bés ma dellu ginnaaw di def BFEM bés sama BFEM pareegut Balla gay dee jël sama avance bés xale bu dee jàng école ñëpp xam nañ xale yi Sénégal tukki lañ bëgg dem Europe sapa papa ñëw ne la doom nga ni ko waaw mu ne damaa bëgg nga dagg bac soo jëlee bac bi naa la may visa jëndal la billet nga dem Europe da ngay kontaan da ngay sawar waaw léegi bac bi bu desee trois mois sa papa ñëw ne la doom mu ne la waaw mu ne dama doon tooñ rek loo def baax na may naa la visa jëndal naa la billet am li taxoon nga doon rayante jot nga ko booy ñaa deux la Gaye la mës a soxla ci àddunaam moom moo ko mën a dugal ci VIP yi kon tey Balla Gaye su bañee ci booy bu bañee booy ñaa ca ba muy daan mu ñëw nangu ko ci booy naa di am defet kon xamoon naa ni daañu daje may borom maa ko war a way ndax maa ko waxoon danañ daje. waaye Tonton fu mu toll nii xamoon naa ni daani daje boobu noonu dafa mel ni da nga wuy bi ci Aziz Ndiaye. maay borom féetale bopp yéen waa Pikine. parce que maa ko doon laaj ban la musuma laaj ban la musuma soxla. maa ko wër ci douche wër ko ci néeg bi wër ko ci salon bi yëg biir këram fekk ko ci kaw mu bañ ma fekk ko néegam ne buri damay bëreeg sa jëkkër mu bañ ma ñëw ci paa bi ne ko damay bëreeg ban mu bañ. kon su demee ba jël ma xamoon naa ni daañu daje maa ko moom. mais tontu. ku mu sa mm-hmm. ba pare wëlbatiku mu mus a wax ak moom téléphone. mu ne ma mm-hmm. bës. du doole. du mm-hmm. bëre. du lenn lépp maa ko ëppale booy ñaa maa ko mën foofu. mais loolu yëpp mënagoo leen ko comprendre. ñuy ko dox combat bi combat bi yàqu ñu bëri ne boo Balla Gaye dafa ragal Boy Niang. Mm-hmm. waaw ñu bëri ne Balla Gaye ragal Boy Niang waaye tey Balla gay nekk ci biir combat Boy Niang dem jëli ci Tapha Tine Balla Gaye ñu nangu signé ak Boy Niang te yemanu fa manager. Mm-hmm. moom ci boppam ku toog manager bi toog mu toog Boy Niang toog. te bu mu mm-hmm. ñëwee dugg dafa ñëw jox ko loxo. bu pare jël ko ci ngaam li. mot na. nii nag Balla bu muy ñibbi dafa bàyyi ba caméra yi fay mu téye sama loxo tuuti mu gaañ ma tuuti mu damm ma sax. Mm-hmm. ne ma bëri naa benn affaire ma ne ko lan la woon mu ne ma ne woon naa la maa ëpp doole maa mën maa dàq bëre te dinaa la ko wan mais Tonton loolu man tiital na ma ci combat bi. waaw c'est normal parce que ki nga xamante si nii moom dafa tëjee euh, nday ji nday ji nday ji jaaxaar ki nga xam ne maanaam moom làmb ji amu ci fu ci waaw day ji seex waaw yow position boobu nga moo tax bu la Balla waxee da lay jaaxal parce que dangaa yor sa micro di laaj mais li Boy Niang wax si ce que dégg nga ko. lu mu wax. mu ne je suis le maire de Guédiawaye mbër du toog sama kaw te boobu ba léegi mi ngi koy firndeel daa jàpp Boy ñaa numéro deux defaral ko. Hmm. jëli lees numéro deux defaral ko. Hmm. jëli sàkka joor defaral ko. Hmm. jëli Lac de Guiers numéro deux toogul ci kawam kon moom mooy la maire de waay Balla bu ñëwee na ko wan ni doo maire Balla bis bu dawee na bërëb bëri si boo ngi gis lu neex xale ak mag duñu benn Balla lan moytuloo Boy Niang Balla Gaye lan nga ko ci moytuloo aw awma lu ma koy moytuloo ci Balla Gaye parce que Balla gay def na lu ko war ba pare moom moo am lu mu koy wan moom moo dafa am lu ma la waxoon ci Pikine dama ne la ñett ñi ñoo nekk Pikine Eumeu Sène Ama Boy Niang wax ñett ñi parce que ñooy leader am na ay mbër yu daw mais ñetti leader yi laa lay digal ma ne la Eumeu Sène na ci moo tax dafay bëri defet parce que boo mënee bëree doo xalaat ku lay daan ak koo dul daan da ngay ñëw rek bëri ma ne la Ama ci ëpp sañ-sañ mooy tax buy bëree da ngay toog tranquille parce que lu bu ko may da koy jëli mais dama ne la li tax Eumeu Sène daanul Boy Niang ndax l'intelligence mm. travail ca bëre ba ca technique ba ca xam ba ca doole ja ca ginnaaw ba ca staff ba amul bala lu mu mën a yóbbu ci làmb ji maa soxla maa bëgg daf ma bañoon ca ba muy mën bañ ma ca ba may am victoire ma am défaite mu jël ma xamoon naa ni daa ngi daje ba mu demee nag bay jël woy sama woy nag di jël laa xam ne ñii ñi ngi nax seen bopp dañuy see théâtre rek hmm? déedéet duñu ngaaga bës duñu ngaaga baaraam foofu ma ñëw Serigne Ndiour waaw sëriñ tey coow li rëy na fële côté mariste beeg yooyu noonu coow li rëy na diggante Balla Gaye ak Boy Niang supporter ñëwul kenn ñëwul tey ñu bëri yëguñu combat bi combat bi surprise la doon même pour journaliste yi bu ñu ñëwee ba foofu la ñu xam ban combat lay doon. Mm-hmm. sëriñ Boy confiance bi ma ko gisee xaw naa doy waar nag de Boy dafa mel ni tey bu tëddee du nelaw de ndax kontaan. kooku waagalaat syndicat rek la xam. <laughs> waaw Beuz maa ngi lay nuyu di nuyu Toldo di nuyu gars yi di wax ne nag combat bi bi ko Balla Gaye Balla Gaye bi ñu joxee accord am yàgg mhm. waaw. waaw combat bi nii Balla Gaye bi mu joxe accord am mën na ko seede parce que Gasson de moroon di ko dox si Boy Niang la dëgëree woon. Mhm. Mhm. kon Balla Gaye amul problème pour bëre Boy Niang xam lu ma la amul tamit benn benn benn danger boo xamante ne Balla Gaye dina ko calculer amul kon Balla yow wéy bu Aziz Ndiaye teg léegi da koy dëgg xamoon naa ne daanu daje bi Balla dafa buggoon Boy Niang parce que dama ni mos dégg say wax nga naan moo gën a a bëri Boy Niang. man man man man comme ça du ma wax lu ma xamul man Balla Gaye moment bi nga xam ne amul combat maay wax ak moom téléphone yaa dégg nekkoo ko yow instant bii nii comprendre ma la ban mbëri ngay ngay jël mu ne ma man sama accord joxe naa ko ci Boy Niang instant booy Boy ci moom la des ci waxaale. na jël avant bi ñu bëri. Hmm. parce que làmb day weesu quoi xam nga loo bàyyi mu dem xam nga. Hmm. affaire bi day dem bàyyi la quoi bu gisee xaay jël lu bëri quoi comprendre hmm. mais problème bi mooy booy Niang li mu doon laaj Gaston fay ko avant Gaston am na ku njëkkoon a ku njëkkoon a ñëw si booy Niang mais Boy Niang li mu laajoon moo bëri. parce que moment boobu lañ doon wax ne ay soixante quinze millions wala soixante cinq millions préparé lu Balla Gaye yaa ngi koy léegi su fi nga nekk noonu baax na mais dafa am feneen fu ma la bëgg a dugal le temps may jël yeneen amateurs yi que am na gars yu bëri yu kaas dañu war a dugg ñoom tamit seen yaram dafa tàng. Euh, Serigne Ndiour. Hmm. mais lañ def baax rek combat bi des Balla Gaye ak Boy Niang. pied hmm. droit la Boy Niang di teg. Balla Gaye di teg pied gauche. tey ñu bëri jàpp nañ ni que pied droit danger la ci kaw Balla te ñëpp ñu bëri jàpp nañ ni que tamit Boy ñaar bëri bu muy bëre danger la ci digganteem ak Balla Gaye maanaam Balla Gaye day am problème pour bëre ku mel ni Boy Niang tey est-ce que Balla mm-hmm. Gaye du jël avance Boy Niang xam nga xam nga bës Balla Gaye ñaata la daal gars bu ñu gis xam nga man lu ma bet làmb waaw xam nga lu ma bet ci làmb dañu gis benn mbër bu teg pied droit daal la wala nii la benn mbër bu teg pied droit dina am problème bu droit Ousmane Diop lu muy teg Aïssa lu muy teg Baboy lu muy teg ñoom ñëpp ay droit la. Mm-hmm. xam nga wala Boy Sey lu muy teg. Mm-hmm. xam nga ñoom ñëpp ay droit lañ Balla Gaye jëli daan leen Boy Niang ak Balla Gaye li ma la wax Balla Gaye luy Balla di Boy Niang ku ci nekk yanu nga am nga benn avance boo wër am nga combat bu nekk sa kanam. Mm-hmm. boo war a bëri. combat bi des na déwén la jëm nañ nañ ñaan yàlla comprendre ñoom seen combat yi comme na ba ñëw ci combat boobu bi ba at bi sifflé li ma la wax nii bindal nga denc ko ba at bi sifflé Balla Gaye day dox ci kaw. Hmm? Hmm? day dox si kaw. xoola lu ma day dox si kawam te wuy ma kor dina fa am ay pétri nekk dina fa am. ah non bëreloo nga dëgg. parce que Balla bi du sifflé mukk Balla di xaar booy ñaar. Balla faalewul Boy Niang arbitre bu sible muy dal ci kawam. d'accord na foofu li Serigne lu wax te it. Hmm. Balla ku ne xam na ni heure bu bi sifflé mi ngi sa kaw. loolu moom ñëpp xamal nañ ko waaye bés. Hmm. keroog bi may bëreeg la xam. bi may bëreeg la xam. keroog bi may bëreeg la xam dama toog ak ko copains ma ne leen li Boy Niang gën a bëgg ci àdduna mooy sur le plat mbër bu daw ñëw ci moom. bañ na ko sax bañ na ko boo dawul ñëw ci moom Boy Niang da lay piéger pour nga ñëw. yow tull ni nga bëggoon ni tey Balla Gaye omelette la mais buzz waaw mais buzz buzz yàlla bu ma guddi na wala bëgg Balla def ko ma ni ko damaa bëgg mu jox song ma mais bu ko Balla Gaye ah yéen sur le plat ak omelette ngeen di wax waaw sur le plat Balla Gaye ñu nag moom combat sur le plat la ak omelette Balla mu neex ko dina song mu naqari ko dina bëri te dinaa ko daan jël boo xamante ni géej waaye fi la ñuy jaaree taal ay tisetu Balla Gaye ba ilaa yow mi diin nga di Beuz ma ne la toldo mi ah. Hmm. damaa yaakaar li mu ndogoo dafa neex foofu kontaan yaa ngi dee wax gis nga Balla Gaye dama la wax benn affaire comprendre nga Balla Gaye xool qualité wax na ma Boy Niang ni muy koy waaj a song li muy def deux photographe ba pare te li ma lay wax nii li la Balla Gaye wax noonu nga yaakaar ne ay caaxaan bu bis baabu bis boobu ngay toog fi naan waxoon na ma moom moom làmb ji toldoo ma ñaar laa ci gis te dinaa ko wax ci kanam làmb ji sama analyse dinaa ko wax ci kanam. Mm. làmbaji ji moom ñaar laa ko comme te gars dañuy comme te gars dugg ah. comme te gars li ma lay wax nii ah. ah gis nga Balla Gaye ah, dafa am lu mu bëgg a gis nga ni Boy Niang defoon rakkam muy Sa Thiès ak Balla Gaye bokkuñu. Sa uh-huh. ak Balla Gaye bokkuñu. kii day avancé di ñëw kër day maam. Mm-hmm. bokkuñu ñoom ñaar la. baax na te booy ñaanal naa la wax benn affaire de attention boo ma gis surtout ko ba muy gis ba muy gis xam nga sa stade boobu mosoo leen ko am ndam. boo ma dañ ko fudd ba muy gis tribune tribune bi ci kaw mooy fi am ker gi. ñu dóor ko ci suuf. mbër bu mag mbër. tëral sa baaraam foofu Serigne Diouf tontu amatoo droit wax. non non damay tontu non bës damay tontu dem. non damay tontu dem damay tontu dem bës. non <laughs> baal ma tontu dem bës baal ma tontu dem. mbëru Pikine ci stade bi mbëru Pikine bu mag. musu fa am ndam musu fa am ndam. ma ñëw musu fa am ndam. ma rek. mbëru Pikine musu fa am ndam. waaw ah, waaw léegi nga xam ba pare boo paree nga ni ma noppi nga ma wax. mbëru Pikine musu fa am ndam. léegi pare nga waaw pare ma dem ma dem. waxal waaye ci boobu noonu. mbër bu mag mësta toog ci kaw mbëru Pikine loolu du débat mais débat bi xam nga mooy lan xam nga débat bi mooy lan. Hmm. Balla Gaye 2 da koo nax nax leen yéen ñëpp bës keroog bi may taxaw fii naan leen combat Balla Gaye Eumeu Sène ci sama yaakaar gëw ma mu taxaw. bu sax daa am lu ko bett ndax Boucher dafa publier ci statut une semaine mu ne billahi barki alxuraan combat bi dana taxaw te fii une semaine dinaa leen. bël bël bël bël li muy wax nii Balla Gaye da leen nax ñoom ñëpp. waaw déglu sëriñ Balla Gaye leen a nax ñoom ñii ñëpp déception la am am fans Balla yi dañoo am déception bu dañoo mere Balla ta sañ ñu koo wax. mais neex oh man ñoom naqari. jigéen bëre colli bi. aji daaje. bës ma tàggoo bës ma tàggoo. bës naa ko génnee naa ko bës Toldo xam nga day wax affaire yi comme ça moom day affaire loo xamante ne instant bi mën wax ci combat bi te combat des na xam nga lu ma la wax. léegi am solo mooy lu ñu wax sànq na ko bàyyi xel bu baax a baax a baax. Boy Niang Balla Gaye wóor na ko ne bu dawalee ci kanam tuuti. ah mu jël fa Boy Niang ba ñu ko indil problème da nga xam ne Balla Gaye dafa dof mhm. instant bi instant bi mu jël Boy Niang moo baax mais booy boo xaaree fekk cinq ans la jël nga xam lu ma la du baax si yow.